Sénégal Plus. Mmh. dama daan jékki-jékki rek sama yaay ne sangu su ma sangu rek dama dem ba ci toilette bi je me lave le visage jusque là xas samay tànk su sama dem toog jàpp sama ñaam <laughs> su ma nee sangu nga ma sangu naa. mës nañ waaw mës nañ ma ramaas <laughs> te là, ça fait même pas un mois lañ me ramasse donc j'ai confondu euh, euh, ma carte d'identité avec euh, ma permis de conduite donc euh, gay, yi voilà quoi il faut je ramasse la yóbbu la ba brigade dem naa ba <laughs> Et eh, ndekete affaire bi métti na dem naa ko mais métti na torop eh, mas ngaa fort xaalis waaw bi ma nekkee xale quand même mais naa for xaalis de dafa mel yi kenn foratu <laughs> ay 100 francs ay bon daan naa for xaalis sax suñu kër ah, parce que parfois fauteuil yi su ma mosaan banque rek damay jël fauteuil yëpp dëpp ko di ko fëgg du coup dama ci trouvé ay 100 francs ay ay 25 francs ay 50 francs eh. mës ngaa nopp góor ba pare ragal ko koo wax. non loolu moom mësuma dal nag quand même. non pour ma nopp góor nii ma jékki-jékki rek nopp góor. ah bon man mënu ma jékki-jékki peut-être nopp kenn kenn koo xamante ni man ak moom sekkuñu dara mën na ma neex nit mën na ma neex nii mais duma ko dara quoi dama koy muñ. <laughs> mës ngaa ko ay message ay message yu yoo xamante ni yàqoon na sama journée quoi quand ma découragé ay message bi doy waar ay mon amour ay <laughs> est-ce que Tu <laughs> go dafa la ndam mës nga metti metti mais dans de sagesse euh, je touche du bois mësuma am ay de de dents à part de sagesse quoi dans de sagesse. <laughs> bien sûr mës un de xalé un joy piqûre mais bon rarement quoi parce que suñu kër ma fa gënoon ñëmé piqûre fama moo gën a ragal piqûre ci adina mar mom mo gëna ragal piqûre suñu kër moom mom ma fa gën ñëmé piqûre moom mo ñëpp mës nga jël premier sen classe non musuma jël premier dëgg yàlla dama ko xëccio xëccio xëccio ba baye jàng ni musuma ko jël kam bon jël na deuxième jël na jël na troisième jël na mais premier moom quand même mosuma ko jël mës nga faq bali mosuma faa ya, xibaare quand même non mosuma ko def parce que euh sama yaay noctambule la kenn mënu koo kenn mënu faa xibaare ci mom quoi soit da ngay tàggoo wala nga tëdd na la sama yaay du teel a ba legui du teel a bu julee fajar lay tëdd. ndax mës nga xëccu bop mburu. bop mburu ba legui dama koy xëccu j'adore parfois gaay bañ ma jël ko sama ñom ñom ñom awa ah sama sama sama mag yeeg yooyu noonu dañ ma nan sokay lek do do voyager et tout mais bon man j'adore quoi ba léegi pomme lay lekk. ndax mës ngaa togg mu rate. bés ma togg mu rate. maa ngi koy fàttaliku. puis jour boobu sama ñàkk mun togg de damay ba ci digg ba dama rek ay 2 eh, minutes après rek gaz bi jeex quoi fekk vendredi la woon gars yi dem jumaa boutique ñëpp tëj ceebu keccax laa doon togg <laughs> eh, jour boobu damaa <laughs> mës nga lekk suuf mësuma mag suuf nag mës nga gedd añ waaw mais lu yàgg la sama gedd sama yaay dóoma ba ma bëgg a dee ci laa gëj a geddee eh, bon je me rappelle plus mais en tout cas xale laa woon donc ci laa gëj a nga xam ne loolu na kon mës nga jëlal sa rakk paar sama mak. waaw sama mak laa daan jëlal paar lu bari bari loolu laa gën a bon comme moom légui ko sens contraire bi la quoi légui man ma tapet moom moo quoi bu ba tàppet la woon donc bu ñu daan dem école so euh, so soo waxee mom rek ñaari baat rek man après dama koy jëlal ki quoi dama naan da nga xamni ne la motax mais après yow suñu wàccee nga ñëw man ak yow ñu xex bon mom aussi dafa doon jël ay goûteem diko ko maye di partager ay goûteem tout le temps et je m'énervais et ma ne ko non attends doo ko maye da nga tàppet sa xarit ci qu'est-ce qui se passe soo nee ma ne laa yow ba ñu wàcc bu ñu wàccee naa régler sa situation <laughs> ndax mës ngaa am défaite ci xeex euh, défaite ci xeex waa bien sûr mës naa am defet ci xeex mës naa am défaite ci xeex mais loolu ba ma nekkee xale la mais xeex yi ma mës a xeex yëpp maa gañ yi ma mujjee xeex yëpp maa gañ ma doon pëtam gars de parce que dama daan xool ñu ma jekku ma xeex ak yow dama am fulla nag <laughs>